mal de le faire bénéficier euh, voilà des, des privilèges de, de, de du poste de premier ministre étant euh, mm. candidat à la présidentielle day mel ni que dafay xaw a am euh, benn avance bu mi am euh, ci ci ci yeneen candidat yi mais dinañ ci dellu si hmm. ah ñu ngi am ci ligne bi honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké honorable maa ngi lay nuyu maa ngi lay voilà euh, maa ngi ko doon wax sànq ci ci ci biir plateau bi euh, gox yëpp sédd na presque mun naa wax ni sédd nañ leen euh, Touba malgré poids électoral bi nga xamante ne ni am na ko amul ab ministre bu fa bu bàyyi ko naka lañ ko mën a jàngate waaw li bon honorable ñu ngi lay déglu. dinañu dellu si waat euh, dinañu dellu siwaat waat euh, ak ak honorable mais Fatou Abdoulaye. allo allo. di dellu siwaat na ñu ngi lay ñu ngi lay dégg bu baax. allo. ñu ngi lay dégg bu baax honorable voilà xam naa problème réseau la man ni xam nga ni ma mën a jàngatee surna tey bi muy surna bu yàgg askan ma doon xaar depuis euh, ñetti fan amuñu gouvernement situation réew fi mu toll gouvernement Amadou Ba 2 taxawal nañ ko tey muy 39 ministres yoo xamante ni yokkuwaat na benn parce que 38 la woon. fa situation réew mi toll ak économique bi ni mel xale yi di dem di dee ci àll bi ak sunu ressource bi nga xamante ni ñu ngi koy caxat caxate ak li nga xam moo jëm ci mbirum bi fi may wax yow baykat yi pare na la maanaam kenn ku mën a jënd seen gerte gi jàpp naa ne tey bu ñu doon defar gouvernement bi pour man dafa waroon a nekk gouvernement maanaam boo xamante ni vingt cinq ministres vingt huit ministres mënoon na ko def ñaareel mooy manque manque concentration bi Macky Sall am jëm war ko ci ci Touba parce que Touba Macky Sall moom amul considération bu mu def Touba parce que jàpp na ni comme du gañu Touba Touba na fa nekk jànguñu amuñu xam-xam jàpp na ne maanaam wur leen a def dara loolu moo tax que heure buy tànn di ginnaawal Touba ndax loolu jàpp naa ne nekk loo xamante ne tey li tax que mënta am Touba ginnaawul gii muy ginnaawal Touba bokk na si loolu ndax yaakaar naa Touba ni mu toll kilifa fa nekk di ko jàppale ak ñi nga xam xam-xam yoo xamante ne xëy na bu leen tànnoon li mu ñàkkoon a am te yàlla dagal loolu lépp dara amu si ko ni euh, investissement bi nga xam ni état def na ko ci Touba c'est un investissement vraiment considérable xam nga investissement li mu wax ay chiffres la te am na loo xamante ni man Assemblée nationale bii mooy sama deuxième mandat li ñuy wax ne Macky Sall def na ko Touba nekkul ci biir Sénégal bi nga xam moom laa woote mu jaar Touba parce que bis bii jàll Touba li ñu fa dugal ci investissement motul maanaam vingt milliards te bi fi may wax ak yow am na loo xam wuñ ko ndax ma li ma gis nga xam mooy bis Sénégal loolu laa mën a wax leneen lu jaar feneen nag xawuma ko mais fii Sénégal diggante 2017 ba 2023 Macky Sall dugalu 17 milliards Touba. diggante 2020 euh, Touba bi nga xam ni defar nañ ko lii jëm ci hôpital bi lii jëm ci mosquée bi ak yeneen infrastructure yi loolu yëpp 20 milliards la jar waaw kon jàpp naa ne loolu lépp ay wax la mais li ëpp solo bu doon investir su joxul considération Touba tamit lu tax ka la fa bëgg mu am ko fa Amadou de ñëw na fekk Sénégal yi ci ay jafe-jafe est-ce que gouvernement gouvernement campagne na est-ce que changement tête ministère yii nii est-ce que ci politique wala maanaam euh, kenn ku nekk bu ñëwee defal ko li mu bëggoon ndax ku ne xam na ne Aliou Ngoye Ndiaye 2019 moo ko defal li bëggoon Antoine Diagne moo ko defal li bëggoon élection yi jàll est-ce que pariwaar pour Sidiki Kaba loolu lépp ay jël yoo xamante ni daf leen di indi pour que bu ñëwee nit ñi xaw am ci ñoom yaakaar ñoom ñu jaar si jaar pour joxaat Macky Sall li mu bëggoon mais en tout cas sénégalais yi war nañ taxaw xam ni gouvernement parewul na yomb nañoo muñ ak dee woon ñu muñ parce yaakaar naa ne fukki at ak ñaar ku mënta faj soxla Sénégal yi juróom benn yoo dafa mën a faj soxla Sénégal yi te aussi ñu ngi koy xaar déclaration pour général boo xamante ni war nañoo assemblée nationale ñu leeral ni gouvernement un yan jafe-jafe ak li nga xam moom la jotoon wax ci li nga xam moom la liir tey est ce que promesse na ko wala def ko pour man man mi nekkoon assemblée nationale Amadou Ba promesse digoon ko falee un bi def ko kon si maa mun fi defal jërëjëf euh, honorable Cheikh Abdou Bara euh, Dolly euh, Mbacké ci li nga ànd ak ñun ci plateau débrief bi Fatou Abdou Ndiaye mu nekk le dernier intervenant juste un dernier mot laata ñu ñu tëj plateau bi ndax y a une autre émission bi nga xam ne mu ngi ñëw muy tribune présidentielle nee na di ci feggoo ak Mame Ngor ma foqati ko ci moom juste mu ñëw ñu ànd ci édition spéciale bi laata ma koy bàyyi mu mu ànd ak nee ak sa ak seen invité voilà Thierno Alassane Sall voilà

ndax mën ci Sidiki Kaba man je pense que ne mënuñu ci am yaakaar bu sori certes nag il est plus tempéré que Antoine Félix Diome mën nañu wax loolu. te procureur la kii avocat la kii avocat la ñoom ñaar ñëpp a wax. <laughs> kee peut être moom moo gën a tàng parce que moom moo gën a am peut être fougue de jeunesse bi moom moo bëri lu muy intervenir kii ministère bu mu yoroon euh, c' la grande muette daw ñu ko dégg ñu wax mais il est politique à un moment bëggoon na nekk maire de Tambacounda il n'a mm-hmm. pas été choisi euh, mais heureusement demul def liste dafa dem changé wu ci le moom la ñu choisiroon à Tambacounda mais il est très politique parce que euh, yi la ànd ak le président de la République Macky Sall. pense que dafa bi malheureusement raté nañu ko ci quatre mois yi je pense que c'était l'occasion mu def sax comme Abdoulaye Wade parce que bi ñu ko sonalee en 2011 mu leer ko ne benn at moo ko dese dafa def meeting. annoncé ne euh, ki nga xam ne Ousmane Ngom comme vous le dites oui il militant. Mm-hmm. dinaa ko bàyyi ministère de l' intérieur. mais damay indi beneen ministère chargé des élections xam nga loolu c' était pour calmer les ardeurs ñëpp xam nañ ne administration mooy organiser élection mais au moins di nga ko rafetal. taaral ba teg fa kenn koo xamante ne dinañ ne Cheikh Gueye inspecteur euh, d' moom la ñu tabb mu jiite ki war a def élection yi naam l' opposition am na ñu bañ ñi nga xam ne mooy LD dañu bañoon ne euh, dañu ko def nii rek pour maquiller mais duñu ci ànd. ak yenn mais finalement nangu nañu ko et aussi organiser nañu élection yu jaar yoon élection yi fi jaar kenn mënul wax ne élection yi jaarul yoon naam le processus mën nañu ko discuter ci li jot am mais dem nañu élection locale mu am ballottage élection législative ci coalition benn Bokk Yaakaar ak ñi nga xam ne mooy Yewwi Askan Wi wàllu élection locale gis nañu ne ñu bari ay localité yu bennoo gagné woon coalition Yewwi Askan moo ko gagné donc foofu mënu faa tudd sax ne am na sàcc bu fa amoon mais pour dalal xel yi c'était l'occasion pour sortir par la grande porte bu ëllëgee comme ni ñu ko waxee nii l'histoire rak wax ne en 2011 Wade dafa tabboon un ministre chargé des élections ñu ne au moins Macky Sall tabboon na kenn koo xam ne moo yoroon élections yi mu nekk doléance bu yàgg bu opposition bu société civile boo xam ne dina ko satisfaire mais jàppal ne Sidiki Kaba tabb nañu ko munul tee opposition waxaat ne il faut une personnalité indépendante pour organiser ces élections coow lay juraat fii ba keroog ñuy dem ci élection présidentielle li mu ciy bëgg pour apaiser malheureusement du ko ci am parce que li nit ñu doon xaar defu ko ci et pourtant c'était l'occasion pour mu defoon. Léopold Tamba. waaw je crois ne que bi d'ici ak euh, ñuy dem ci élection yi dina am ay changements également parce que euh, Macky Sall bu ñu gis nii ça veut dire ne que ni euh, def na changement benn yoon mais est-ce que par exemple foofu lay yem c'est ça la grande question parce que moom elle il ne s'arrête jamais quand il s'agit de de d'élaborer des stratégies stratégie yooyu muy élaborer moo koy permettre yenn saa yi mu am gisin boo xam ne nii day ne lii ma tegoon dama koy dama koy daaneel indiwaat leneen tegaat tegaat soo xoolee Macky Sall dans toute sa trajectoire c'est toujours comme ça dem na ba dina la ne man damay dem ba mu tàggoo ak nit ñi ak neen ñi mais ba léegi mi ngi fi taxaw. indi na koo xam il faut mu taxaw ba mandat am jeex. <laughs> waaw au moins il faut je veux dire que ba léegi il est le ba léegi c'est lui le président c'est lui qui donne. c'est lui qui donne la charge c'est lui qui qui qui démet qui ne démet pas ainsi de suite donc ça veut dire ne que lui moom il n'est pas prêt. véritablement peut-être que bu buñ ko ba buñ ko. toujours euh, la même mise de Macky Sall sur Amadou Ba. mais bien sûr c'est ce que vous voulez dire. mais parfaitement. voilà Mame waaw comme ni ko fato Abdou ak Léopold waxee rek. Euh, enjeu bi mooy présidentiel yi di ñëw Macky Sall je pense que li mu li li mu deseel dëkk bi réew mi mooy organiser ay élections yoo xam ne dafa jaar yoon. apaisé. apaisé. te du am contestation inclusif hmm. ku war a bokk ñu xam ne war na bokk mu bokk contestation bañ ci am. Euh, ku nekk dem parce que Sénégal moom vraiment euh, mbiri élection toll nañ suñu démocratie dafa waroon toll boo toll foo xam ne nii mbiri élection kenn du ko fi coow mais malheureusement ñun danse du scalp la ñuy def suñu démocratie dañ naan am na deux alternance euh, ñun Afrique peut-être ci pays yi ci gën a am njëkk a am alternance ci leen bokk stabilité bi ñu ngi fi mais saa bu élection jotee coow am ci je pense que loolu war na noo dépassé war na noo dépassé loolu te li tax ñuy dépassé ko président de la république nga xam ne dafa war a dem il est sur départ moom dafa war a dem te en le vingt cinq février euh, wala avril day dem donc buy dem dafay war a bàyyi way wu rafet woo xam ne nii organiser élection nit ñi dem voté ji ku gagné ñu xam ne gagné na parce que enjeu bi yépp loolu la diggante bi mënoo fee def dara. Mhm. diggante bi amul dara loo xam ne ni mën nañ ko fi def. Euh, euh, ministère boo xam ne ni dafa ñëw bala ngaa dem bay jël say mark surtout ministre yu bees yi. Euh, mbir mi jeex donc euh, enjeu bi mooy mooy organiser élection yi ak jàmm euh, li li ñuy wax naan expédier les affaires courantes te après les les vaches seront seront bien gardées voilà fas yéene ñu ko def de ñoom dañoom am ay ay points stratégiques <laughs> quatre points stratégiques ci gouvernement Amadou Ba deux euh, trente neuf ministres bu ñu koy comparer ak bi euh, génn muy trente huit euh, mu ne woon trente huit ñeenti weer à peu près voilà dese leen laata ñuy dem ñeenti weer rek dese leen laata ñuy dem ci présidentielle bi ñu leen di jëfal li ngeen ànd ak ñu ne ci plateau débrief bi di leen di jox daje rek ak Néné Aïcha ci émission élection tribune présidentielle mu ciy ànd ak Mame Gor Ngom ci présentation bi excellente soirée au revoir.